ay enveloppe yu duun yoo xamee ni euh, taxaw na di ko séddale yu ma yëg ak yu ma yëgut en tout cas képp koo xamante ni yaa ngi def social ci période bi le euh, ñu ngi lay gërëm euh, loolu rek lañ leen di doyee na ngeen jéem jàppale ñi nga xamee ni soxla nañu leen parce que actuellement dëkk bi dafa xaw a metti metti nag euh, weesuwul mm-hmm. nga dem marché euh, mm-hmm. doo am loo fa jënd mm-hmm. waaye nag li gën mooy ñay jaay respecter prix yi euh, on a fait le marché pour xool un peu fan la njëkk yi toll tabaski des ñetti fan mado oui Baye Cheikh comme ni nga ko waxee respecter prix yi loolu am na solo ba tax na am na ay kuréel yoo xamante ne loolu moom moo leen tax a jóg comme exemple waa IPOS nga xamante ne ñoom ñooy kuréel bi nga xamante ne moom mooy saytu lépp loo xamante ne mooy jëm ci wàllu importation ak li di production yi nga xamante ne ñun dañ koy soxla donc dékkoon nañ nag sunu micro ki nga xamante ne moom moo di seen de com di Ali euh, Ndiaye mu ànd ci nag ak ki nga xamante ne moom moo di Momat Cissé nga xamante ne moom mooy vice président wu ASCOSEN ak ki nga xamante ne moom moo di Abdoul. Euh, Amadou Abdoul nga xamante ne moom mooy DG ARM ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy arrêté euh, bi euh, ministre yi teg euh, ministère bi teg par rapport ak li nga xamante ne moom moo de yokkute njëgu soble yooyu nga xamante ne ay denrées yu ñu nar a soxla ci tabaski bi ñu jëm rawatina nag mu nekk tabaski boo xamante ne bu tombé Covid bi la ñu àndandoo dem xool élément bi ñëwaat. ci ndigal le président de la république du Sénégal moom moo yabal ay ndawam ne leen nañu organiser yi. ba tey bu ñuy indi importation bi ba ilaaka ba ñu koy tëj ñu mën a sukkandiku ci seen i kàddu ak ñoom gëstu bi ñu def ba bu boobaa ñun daan du ñu am problème bi ñuy waaj a boobu ñu àndoon ak euh, délégué DER bi buy ministre Pape Sarr ci ndigal le président de la république pour ñu dem xool yan jafe-jafe moo am ci àll bi mais yan saafara lañ ci mën a def loolu bin ci bin ci duggee yàlla def nañu def benn tournée ñun ak moom commencé ko ci zone de Niayes bi ba dem ba Podor ñu gis stock yi nga xam seen am na fa producteur li ñuy wax mooy bay nañ ba pare mais gisuñu ku ko jënd ndax jamono jooju déplacement bi xawoon na métti pour ñun ñu déplacer dem fekk leen fa beneen bi mooy soo jëndee est su ma ñëwee dinaa ko jaay kon du ma ñëwee investir sama xaalis état ci loolu nag def benn gunge ci ñun mooy dafa wax ministre de l'intérieur mu signal ñun ay ay ay autorisation pour ñu déplacer wu. beneen bi ci des mooy ñu génn ay financement jox ko commerçant yi. ba jamono ji daan fekk ñu ne événement bi des ay 10 jours ñu ne soble dem na téeméer wala 600. wala 700 francs nga naan ay 800 la pomme de terre jar yaakaar naa bu ñu fàttali ko ci ginnaaw pomme de terre doon jar ay 1000 francs mais loolu moo tax ñu liggéey ci ren mais rawatina feebar bi fi am nga xam ne sax kenn mënut ñu ne nag soble dina yokk wala du yokk dina am wala du am ministre du commerce dafa déplacé wu woonu ñun organisation bi ak waa ARM waa DER ñu déplacé wu jóge ñun fii ak suñuy oto dem ci àll bi xool li ñu bay ak stock yi nga xam seen moo nekk sur place ba ñu demee tamit vraiment gis nañ fa lu dal xel mooy am na lu ñu dindeegul te am na loo xam dinañ ko ma nga taxaw ci ci parc bi oto yaa ngi chargé di dem ci région yi ak lu mel ni Dakar ak Thiès kon yaakaar naa ne amatul jafe-jafe boo xam seen dañ naan produit bi day manqué wala daaka prix bi dafay cher ci loolu tamit nag ci la ministre bi sukkandiku ba ba def li ngay wax arrêté dénk ko euh, directeur de commerce intérieur vraiment moom Ousmane Mbaye ñu ànd ak moom it moom it mu def arrêté boobu bind ni prix boursier bi à 325 prix en gros à 360 détaillant bi 400. ñu ngi sensibiliser. les commerçants ñu xam ne période bi ñu nekk période Covid la nit ñi amatuñu xaalis donc bu ñu mën a jaay prix boo xam ne sax dafa yées arrêté bi moo gën ci askan wi parce que soble am na pompiteer am. commencé nañu campagne bi depuis décembre daaw bu ñuy commencé ñu réunir ak commerçant yi dem ci tool yi demaat toog ak ñoom ak euh, commandement territorial fixé prix yi ñu war a jaay entre temps mois de mars Covid bi ñëw. ñu dellu ci ñoom waxtaan ak ñoom nee leen comme léegi lu ñu am mu ngi nii bëri na il faut ñu sakkanal ko sakkanal bi mooy lan ñu jéem a def tous les moyens pour ku mu bañ a manqué suba su manqué suñu demee ci plan international bëgg jënd mu am problème parce que actuellement déplacement bateau déplacement nit ñi dañu ko yombul bu ñu defee réunion ak ñoom waxtaan ak ñoom aussi dem nañu gis ay autorité ku mel ni ay kuréel ku mel ni DER yi nga xam ne dañuy appuyer ay ay acteurs ñu def ak ñoom réunion ñu accepté ñu appuyer commerçant yi pour commerçant yi dem jëndi soble bi am na à peu près ay 10 commerçant yu jëndi soble bu bari stocké ko yow dem nga Thiès gis nga ci kenn ñeneen ñi aussi ñu ngi fii lu ñu yor bari na parce que xaalis bi day rouler ci ñoom ñu gis comme ñu gis producteurs yi aussi waxtaan ak ñoom avec le ministère de l' pour ñu mun a préparer campagne hivernale bi ba mu voilà surtout ñoom euh, seen taxawaay ci sensibiliser jaaykat yi ñu bañ yokk. loolu c'est mmh. important. waaw Baye Cheikh comme ni nga ko waxee sensibiliser yi nga xamante ne moom moo di jaaykat yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, nara dem jënd ñu xam ni que euh, soble bi fi mu ne nii waruñu ko yokk parce que comme ni ñu ko waxee woon sànq bi pa euh, état bi fexe na ba nga xamante ne waa DER dañu financer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykat yi à ce que ñu jënd li nga xamante ne moom moo di soble boobu te à des prix yoo xamante ne yu wàññeeku la donc fi mu ne nii pour ñu xam rek am na cinquante mille tonnes de soble boo xamante ne mi ngi fi juste pour dire que du manqué parce que bu njëkk par rapport ak avant yeneen tabaski yu normal yu doon euh, def wuuteeg li nga xamante ne moom moo di tabaski Covid bi nit yi dañ doon jënd li nga xamante ne moom moo di soble ay période Korité wala bien avant koor gi rënk ko ba nga xamante ne bu tabaski ñëwee dañuy naan ko soble bi dafa manqué ba ñu mun ko yokk waaye bi pa gis nañ ci dem be dikk bi dafa jafe woon ba donc état bi jàppale na bu baax marchand yi financé leen ñoom ñu dem jëndi fi mu ne ni soble donc ak production bi ma lim léegi di cinquante mille tonnes yi soble bi bare na à un point que manqué wul ba nga xamante ne war nañ mun a hausser prix bi donc arrété bi nga xamante ne ministère bi def na ko mooy bind na ni que ils l'ont signé le 22 là ni à partir de lundi depuis démb dinañ génn di dem sur le terrain di xool fi nga xamante ne moom moo di marché yeeg yooyu est-ce que ñu ngi yokk li moo di njëgu soble bi parce que liñ leen di ko joxee yomb na parce que fi mu ne nii ñi ngi naan en gros ñoom ñi ngi jëlee soble bi à 360 francs euh, saaku 25 kilos bi ñi ngi koy jaayee ci li nga xamante ne moom moo di 9000 francs donc ce qui veut dire que détaillant bi di ko jël di ñoom niñ koy jëndee en gros léegi ce qui veut dire que ñoom bu ñuy jaayaat ba normalement détaillant bi à partir de 400 foofu la war a mun a yem wala 450 mais bu fekkee da nga wër comme tey ci suba bi may doxantu boutique yeeg yooyu ñi ma laaj yëpp ñu ngi jaayee à 600 ah. alors que c'était pas normal ñoom ñu ngi war a jaayee maximum kilo bi à ba ce qui fait que ak arrêté bi nga xamante ministère bi signé na ko wax naa ko à partir de démb ak tey dinañ ci fépp foo xamante ne détaillant dafa gis nañ ni que da ngay jaay plus de 600 euh, francs wala 600 francs li nga xamante ne moom moo di njëgu soble bi wala pomme de terre bi ay daan dinañ la ko teg parce que yëf yi manqué wul bare na à en tel point que war nañu mën a respecter li nga xamante ne moom moo di euh, prix wu bi nga xamante ne ñoom joxe nañ ko donc euh, xam mhm. mhm. amul amul amul notion wu mhm. exiger jaaykat bi parce que aujourd'hui bu état bi ne par exemple homologué nañ prix yi wala teg nañu ay ay ay ay solution yu war a mën soble bi par exemple warul dépasser. 400 400 man boo ma ko jaayee 450 ma mhm. jaral. Mhm. en fait li ma war a def pour yëf yi mhm. normal du ko jaral. yow ñu jaayee la ko 500 da nga naan ah garaawul 400 ak 500 benn la. ñu jaayee ko kii 600 mu ne ah garaawul alors que fukki dërëm yooyu 100 francs yooyu ak 200 yooyu. buñ ko boolee da xam ni réellement garaaw na. donc il faut que ñun aussi ñu exigeant ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jaaykat yi. ba ñu xam ne lii la la war a jar. nañ ko jaayee noonu mais su bu excessif te dara fekku leen ci après mhm. lu état bi topp topp topp mhm. te ñun en tant que consommateur exiger wuñu li ñu war am mhm. dëgg la loolu tax nag loolu mooy laisser aller bi am peut ci euh, parce que ñun tout temps dañuy neenal wala dañu ñàkk graawal ñun ñi nga xamante ñun ñooy consommateurs yi di dem di jënd parce que da ngay naan li nga naree perte ay fukki dërëm temps wax beeg yooyu autant nga jënd rek une bonne fois mais nag ñoom looloo tax ñoom fi ni ils ci xool bu fekkee nag respecté woo li nga xamante ne mooy njëg bu ñu wax ay daan bu la ci fekkee yow yaa koy teg sa bopp donc ñoom ils n'ont qu'à être moom moo di arrêté bi parce que état bi bii pas daf leen jàppale rawatina nag euh, ndax Covid bi nga ci effort léegi nag ku ci dugg ci sa rukk mën a kan xam ni que lii lu ma war la moom laay def dëggu donc après nag ñun aussi ñu jéem a góorgóorlu comme ni nga wax di sabablu mais c'est vrai que tu pas tout temps dire non euh, dégg naa ci télé bi 450 la war a yem donc fa laa koy jëndee c'est vrai mais en tout cas lu mu ci muntu doon ku ci nekk daal na ci góorgóorlu mhm. waaye rawatina nag ñi nga xamante ñooy jaay parce que jamono dafa metti tabaski bi wute naak yeneen tabaski yi te yëpp ci social la soble beeg pomme de terre bi soxla nañ ko mhm. ñi amul xar euh, ñoo xamante ne mënuñu dem jënd xar wala maye xar ñi nga jënd ci saako yeeg yooyu di ci dimbali nit yi di leen di ci may donc mhm. na na gën a ànd ak yërmande parce que tabaski ren bi dafa ren bi dafa metti mais bon yàlla baax na wax loo xam def loo euh, boo tëddee euh, nelaw mhm. merci Mado pour ce euh, sujet léegi nag jot na ñu maye xar